salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi ñaari vidéo yi maa ko monté gis ngeen Tapha Mbeur Tapha Mbeur toj na open press su Modou Lo bi tey te moom moo doon wax naan taluma làmb di mbubboo Ousmane Sonko anamu tey moo nekkaat ci làmb ji di bàkku toj na open de presse bi yéen jeunesse bi kan ngeen war a gëm kan ngeen war a jox bopp nee naa leen Macky Sall ku ko bañ da ngay sonn Macky yàllaa ko baaxal mu nekk nit ku baax kilifa diine yi bëgg ko ndaw ñi bëgg ko man ñi bëgg ko xale yi bëgg ko maire yi bëgg ko bàyyi bëgg ko dégg ma de dem na bàyyi ñoog Amadou Ba Amadou Ba ñun moom la ñu jàppale parce que Amadou Ba makee ko fi teg te makee du teg como ku ne xam ne ne Amadou Ba ndaanaan la te ku mën a yor réew mi la te baax na lool sel na ak reetaanam yaru na na muy toogee sell na silvise na te jekk na ci daaku ci biir pale bi Amadou Ba la ni jàppale dafa mbër lu ne wax nga ko Modou loo lu ne wax nga ko mbëri lu ne yekk nga ñaari vidéo yi laa monté nii tey yow yaa tourné waat ci làmb ji xam nga ne kon foofu ngay mujjee bàyyi leen di wax di mbubboo Ousmane Sonko bàyyi leen di wax di mbubboo Ousmane Sonko ak mbubboo jeunesse bi li ngeen di wax gëmu leen ko Amadou Ba nag sunu mbakkan bii ci moom lañ koy teg addiya lan ko ko jox addiya lan jox Amadou Ba sunu bakkan bii na góorgóorlu te liggéey rek lépp lu daq ci Amadou Ba bëgg nan Macky la bu ñu tegaloon muus wu ak jësit ak soccet na leen ko ñu voté ko kaña sax bu ko indee gars topp ci ginnaawam parce que moo ko liggéey ci réew mi wasalaam. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi. kaa am na vidéo bi wage lan ci doon noq honorable député waga moom wage moom lañ doon téegal ndayam parce que Farba Ngom une semaine ngi nii mu une semaine ngi nii muy campagne nekk ci ay campagne am Farba di liggéey Fuuta di dimbali ndongo daara yi di joxe xaalis ci équipe bi di dimbali ñu feebar ñi di dimbali bon néew di doole yi ku ne mu dimbali la di campagne la Amadou Ba léegi nag euh, Farba Ngom moo jóge dëkkam ah di añam jëm fi nga xam ne moom mooy bokk jëwee ci di dëkku Euh, ki nga xam ne mooy honorable député wage wage nag baare ci route national bi ñaari oto yu ngande yu jël aluminium yu bëri naan Farba Ngom du jàll Farba Ngom du jàll mel ne mbaayam wala papaam moom moom route nationale bi ñu jàpp ko doon téegal ndeyam nii gis ko yow boo demee assemblée looy wax nit ñi honorable député waga mi nekk assemblée lan jàpp di téegal ndeyam nii ba mu bëgg a dee moom la ñuy jàppoo nii parce que Farba Ngom la baare ne du jàll yow Farba Ngom ni mu sonnee ci président Farba Ngom mooy Macky far Farba Ngom mooy du Ba Farba Ngom mooy APR Farba Ngom mooy Benno Bokk Yaakaar Farba Ngom kenn mënu ko ci liggéey bu jëm ci APR ak Benno Bokk Yaakaar jàppale Macky Sall Farba Ngom a ci teg tànk nga naan danga koy baare danoo waroon a téegal sa ndey ba nga gën xam nga kat nan sa ndey dinañ dëggaat sa ndey ba Ngom kenn mënu ko téye parce que day def lu baax di dimbali ay nit toj na fuuta far ba kan day moom day nit kii daa wér ah wage xanaa da ngaa dof yow yow ba ngay baare Farba Ngom xam nga ne boo amoo ay mbokk boo leen tàggoo bu ko def moo tax tegal nañ sa ndey rek far ba rek ca kaw